الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن احتفى آثارهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq di jiital ci nuyoo bi imaam yi nga xam ni ñoom la yàlla jiital suñu kanam te ka nekk ca bopp ba di imaam Xaaji Malik ak mbooleem imaam yi topp ci ginnaawam yépp ñaanal leen yàlla jaamu yàlla bu yàlla nangu ak sutura yàlla dàqal leen seytaane ak bakken ba yàlla bu ñu gis seen bopp ñu nit yàlla bu ñu gis sunu bopp ci barke yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu mag ñi ziyaar leen ñaanal leen yàlla yàlla yàggal leen sunu kanam te may leen wér ci njiitalu bàyyi mbay moroon fa tabaarakallaahu ak mag ñi ëmb jumaa ji yépp ñi nga xam ne dañu tawat te nekk ci kër yi yàlla mi am saafara yàlla na yàlla saafara leen te delluwaat leen ci mbooloo mi ci jàmm di ñaan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm ak àddina bi ñaanal sunu mbokk ujjaac yi yàlla na yàlla defal ak gu yàlla nangu ak gu yàlla barkeel ñun ñi demul te desandi fii itam bépp jaamu yàlla bu ñu def yàlla na ko yàlla nangu te barkeel ko te ñaan yàlla bu déwénee lim bay dem yàlla ñu ci yàlla boole fa tabaarakallaahu ñun ñi fi desandi li nga xam ni mooy sunu wareef moom lañuy wax al addaa te mooy ni ñu ko miinee di ko wax baatu tabaski tabaski nag dañu wax ni sunnatun waajibatun sunna la boo xam ni daanaka rekk farata waaye ci kan mu ni ala man istataaha ci koo xam ne man nga ko attan nga ko mooy man nga ko man nga ko bi nag mooy koo xam ni am na njëg bu mu war a tabaskee ci at moomu nga xam ni ca tabaski ware ci moom maanaam am nga njëgu tabaski boo xam ni fii at mi di jeex doo ci am benn jafe-jafe kon dangay seet ni li ñu ci sonnal lu ci bari xëy na dañ koy teg ci aada waaye du ñu ko teg ci diine ndax ku am njëg boo njëg boo xam ni féeg at bor du la ci fekk jafe-jafe dund sa njaboot du la ci fekk kooku la ñuy wax ni kooku moo moo mën tabaski kooku la tabaski nekk wareef ci moom ñu ni itam war na koo ci ni ko ko diine sante mu def ko defaaleel ko képp koo xam ne moo aju ci moom ci dundam ba ci ay waajuram yoo xam ni yàlla mën loowu leen ko moom su fekkee mën na ko mën na koo def te yéene leen ci yool bi mu xaleel itam su fekkee mën na ko nañu ko nañu ko ko defal su fekkente ni tabaarakallaahu tabaski war na ko bu fekkee am na alal bu mu ko defee nañ ko ko defal tabaski li ñu miin di ko ko defee te yenent bi bàyyi woon ko fi sallallahu alayhi wa sallam mooy gàtt ñu gën ko miine ci xar xar boo xam ne am na at walla mu am juróom-ñetti weer walla mu mat fukki weer ñu ni xar boobu mat na tabaski bu xar mu góor taxawul ñu seet xar mu jigéen bu mat loolu su amul nag ñu wut bëy bu góor su amul ñu wut bëy bu jigéen su amul ñu wut nag bu góor su amul ñu wut nag bu jigéen ba ci giléem gu góor ak giléem bu jigéen yooyu ñoom lañuy tudde ay ndox téef yooyu ñoo war ci ñu tabaskee ko ñu ni itam yow miy jënd tabaski na seetlu bu baax gàtt bi ngay jënd boo xam ni wala yajuusu fi shay'in min zalika xawraatun maanaam doo jënd gàtt boo xam ne dafa am ayib wala maridatun wala du gàtt boo xam ne dafa feebar wala xarjaau albayinu wala du gàtt boo xam ne ginnaaw béjjën yi dañu am damm-damm bu fës boo xam ne soo ko gisee rek tabaarakallaahu gis ko su boobaa xar yooyu xar façon xar yu mel noonu yépp yow mi jënd tabaski da koy moytu wala xajfaau allati la chaama la ay laa sha'ma fiha nee tamit nanga nga moytuwut gàtt boo xam ne ni ñu koy tuddee ci waxinu sénégalais mooy gàtt boo xam ne boo jëlee sa ñaari baaraam jël ci ñaari weti ñu daje ñu koy wax rey mu dee wala reyul mu dee mu ne gàtt boobu su fekkee dangay jën tabaski nan ko moytu neena na it bul jënd gàtt boo xam ni nopp yi dafa dagg bi maanaa buñ ko mesuré woon en trois parties ñaareelu partie ba dafa dem bay àgg ci ñetteel ba waaye bu fekkee benn partie bi rek moo dem te nekkul gaañu gaañu boo xam ne dafay tuur deret su boobaa gàtt boobu dina mat tabaski waaye su fekkente ni ah dafay tuur deret wala béjjën bi dafa mbëkkante bay tuur deret mu ni su boobaa nga wuti beneen te xam ni boobu la gàtt du mat tabaski mu ne itam xam ne dafa dafa muuma bi maanaa du du mbey mu ni sooy wutit nga bàyyi ko xel yow mi wut tabaski nga moytu xar mu tol noonu wala koo xam tamit gen gi dem na ba àgg ci ñetteelu sulus ba dagg na ba àgg ci ñetteelu sulus ba yow mi wut tabaski yow it na nga moytu xar mel noonu moo xam ni euh, dafa silmaxa wala bët bi pat yow it na nga may na moytu xar mu mel noonu wala xar moo xam ni gémmiñ gi dafay génne xet boo xam ni fa tabaarakallahu boo ko jegee sax odeur bi di la bëgg a rey yow it na moytu xar mu mel noonu mu nag su yàlla dogalee nga xas am tabaski mu ni tabaski bi danga koy yéene jaamu yàlla comme ni ko yàlla digale woon sunu maam ibrahim alayhi salaam waaye nag mu faf daganal ko ci xeetu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla moo waxoon yonent bi ni ko wattabi millata ibrahim al hanafi muy nag soo xasee am gàtt gàtt bi yaa ngi koy rey keroog bésu tabaski bi muy bésu fukkeel bi ci weeru tabaski mu ni ban waxtu nga koy rendi ñu jéggal ma ci rey bi yaa ngi koy rendi ci waxtu wi nga xam ni imaam ba nga aju julli na ba rendi gàttam ba pare ci nga am sañ-sañu rendi sa gàtt mu ni nag bu fekkee da nekk ci gox boo xam ni kenn julliwu fa it maanaam su boobaa kon yow dangay nattale ci dëkk yi la gën a jege imam ba fa julli ba rendi gàttam fa tabaarakallaahu boo ci amee lu la leer nga soog a rendi sa gàtt muy nag su fekkee dem nga nag ba amuloo benn benn information te xam naa ci jamono bi ñu nekk yàlla def na tawfiix euh, ci technologie ba nga xam ni téléphone yaa ngi fi ak yu mel noonu waaye lislaam bàyyiwul dara su boobaa waxtu wa nga xam ni mooy waxtu du'a di waxtu yoor yoor nga xam ne ca nga daan natt ni ca lañ daan ren di tabaski su boobaa Euh, boo nekkee foo xam ni kenn julliwu fa te nga bëgg a rendi sa tabaski su boobaa soo ko amee waxtu woowu nga koy rendi te waxtu woowu euh, mooy waxtu tudd mooy tabaarakallahu waxtu du'a nga xam ne waxtu wu am am solo la xam ne yàlla sunu borom subhanahu wa dem na ba ciy giiñ li wa mu ne itam soo xasee ren di gàtt bi neen soob na la na nga ci xéwlu waaye na nga ci saraxe mu ni soo ko defee nag def ma lu gën su fekkente ni danga tële tëlee ren di wala nga tële fees ba wut ku la ko defal mu ni soo koy fay nanga ko fay ci xaalis waaye amuloo sañ-sañ fay ko ci ndawal li walla nga fay ko der bi walla nga fay ko tànk yi wala nga fay ko bopp bi su fekkente ni nag tabaarakallaahu euh, defal na la li li mu la li nga ko santoon yow nag na nga jël xaalis nga fay ko yeneen yi nga xamante ni yépp miin nañ ko ci tradition ci wàllu aada yooyu yëpp bokk ci ay tànku njëkkeeg tànku ndey tànku bajjan ak yooyu amul ci tabaski lekkal yaag sa njaboot fa tabaarakallaahu ba sant yàlla li ci des nag soo mënee nga saraxe nga saraxe ko ci comme ni mu la soobe fa tabaarakallaahu ñu ni sopp nañu ci bésu tabaski ba ci ayaamul asri buñ nee weer wi feeñ na sopp nañu ci jullit bi mu def ko ayaamu tahlil mu nekk ko ay fan yoo xam ni dangay tudd yàlla lu bari waaye mu nekk ay fan yoo xam ni dangay def bi kasrati salaatu ala nabi da ngay def di julli ci sayiduna muhammad lu bari di ko def nag euh, guddi ya ak bëccëg ya ci fukki fanu tabaski yi sopp nañu ngay jàng alxuraan lu bari waaye sopp nañu ngay bari looy def istixfaar di jéggalu sa borom subhanahu wa taala yow mi nga xam ni tabaarakallaahu yaa ngi fas yéene dundal sunna yenent bi sallallahu alayhi wa loolu yépp yenent bi jàngale na ko moo tax ñu koy doon tuddee ayaamu ayaamul azkar wa ayaamul siyaami wa ayaamu salaatu ala nabi di ci bari looy julli ci sayiduna muhammad wala soo manee nga ciy woor wala soo manee nga ciy wéet di jaamu yàlla wala sax nga ciy bari looy def ay nawaafil lu mel ni julli rawatina ci guddi yi moo ci ëpp solo tabaarakallahu ba àgg nag ci bés bi nga xam ni moom la ñuy tuddee yawmu wuquuful arafa bés bi nga xam ne ci la ñuy taxaw nga dundal guddi gi su bëccëg ba nga woor ko tabarakallahu yent yàlla muhammad nee na képp ku ko def yàlla jéggal la sa bakkaaru at bi nga jóge ak at bi nga jëm yooyu xeetu jaamu yàlla yépp nag yàlla nañu ko yàlla nangul ci yent bi sallallahu alayhi wasallam te yàlla yombal ko yàlla yombal xar yombal tabarakallahu li ci aju yépp fa ku manit sa dëkkandoo wala sa mbokk soo ko mënee dimbali nga dimbali ko ndax ni sariya tërale ak ni aada yi réew mi tëdde du benn te réew mi aada moo fi man diine waaye su fekkoon dañ koo tëral rek comme ni ko yonent bi tërale woon kon sama classe gi ñoom ñëpp tabaski wàcc na leen parce que mënuñu ko waaye nag bu dee fekk ñoom imam mulaay la ñi nga xam ni ñoom am nañu ay talib yu leen di jox ay xar ñu am benn ba ñaar ba ñett ah bu ñu yew xar yooyu nak seen gette nañu ko yaatal jox ko seeni dekkondo ak seeni mm, ah, mbokk fuqara yi nga xamni ñom amuñu tabaski yal na yalla yombal lepp te jàppandal lepp ñu tënke wax ji ci ñaanaat jamm ci réew mi ak lan moy indi jamu. senegal dañu wax ne réewu diine la quatre-vingt-quinze pour cent sont des musulmans waaye jàmm wax ju rafet ndax ay ci gémmiñ lay bàyyeekoo waaye lii fay ay ci gémmiñ lay bàyyeekoo moo tax yàlla daan wax mbooleem ku koy waxal la ko daleeg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ba ñi nga xam ne dañu am sañsañ sañ di wax ci diine wala ñuy wax nit ñi di leen dégg wa man axsanu xawla mi man daa ila allahi wa amila saalixan wa qaala innani min al muslimin waaye bu ñu seetloo fi réew mi toll ci ay jafe-jafe ci fi réew mi toll ci fitna ñépp di ñaan jàmm kilifa diine yi di joxe ay dog ngir yàlla def jàmm ñuy daw ci xalif généraux yi di leen ñaan ngir ñu ñaan yàlla def jàmm jàmm jooju nag le champ politique aussi ñoom war nañoo jouer seen rôle ak média bi nga xam ne moo nekk ci réew mi nan lañ ci war a jouer seen rôle mooy bu ñuy tàllal seen micro ñu koy tàllal kuy wax jàmm waaye koo xam ni kàdd bu mu yëkkati musiba la kàddu bu mu yëkkati fitna la kàddu bu mu yëkkati ay kooku ëpp na invité ci plateau télévision wala nga tàllal ko micro pour mu wax ndax dafa yee fitna te al fitnatu naima yenent bi sallallahu alayhi wa sallam na fitna mi ngi nelaw yàlla rëbb na ku ko yee défendre sa parti walla défendre sa cause jarul wax-wax joo xam ni fa tabaarakallaahu tàkk-tàkk bi nga xam ne dafa giim fayul mën na ko yeewaat loolu ku nekk war nga ko moytu te bu réew mi jaxasoo ñépp seen xel dañuy dem ci kilifa diine yi te bu leen fàtte ni kilifa diine yi ñoom seen discours ci seeni cérémonie lañu koy waxee ñoom mënuñu waxee assemblée nationale parce que constitution réew mi mayu leen ko te ñi jiite réew mi dañu gëm seen droit gëm seen constitution mais ñoom seen assemblée nationale mooy seeni ziyaara mooy seeni gàmm mooy jumaa yi bayaan yi mooy tabaarakallaahu seen njaboot yi ak cérémonie religieuse yi ñuy daje di mën a wax ak jaamu yàlla yi te loolu bi Sénégal dee Sénégal ba tey kilifa diine yi jóguñu ci sëriñ Babacar Sy ibnu alxaaji Mansour yàggul dara ci gàmmu gi dafa bind tem ni wa xuulu linnaasi xusnan mu jël kàddu yàlla ni kat suñu bëggee jàmm am ci àddina ñuy waxante lu baax nañuy waxante lu rafet mais réew moo xam ni mukallaf buy wax yaa ngi saaga mukallaf buy wax yaa ngi xas mukallaf buy wax yaa ngi wax lu ñaaw sa mbokk mukallaf sa mbokk jullit sa mbokk doomu aadama ba pare bëgg jàmm am mbokk yi loolu mënul nekk kon nañ ñu dimbali ci rafetal kàddu yi te mbokk yi jullit du xas moroomu jullitam jullit du ŋaññi moroomu jullitam jullit du toroxal moroomu jullitam te réew mi Sénégal ñi fi dul ay jullit sax xam naa dinañu wéet di ñu reye ñun jullit yi bu ñu demee ci weeru koor il ñu waxtaane alxuraan waxtaane ngëneelu koor waxtaan nan la def ba jubóog yàlla mais débat télé yépp ay débat politique la rek xasante saagante bu ñu ñëwee ci tabaski ëllëg débat tele yi nekkoon ñu jël boroom xam-xam yi tasaare leen ci télévision yi ñu delloo si nit ñi nit ñi tuub dellu ci yàlla waxante lu baax sëkkante njekk ak teraanga waaye xasante saagante koo àndalu xas ko ku àndul ak yow xas la rek loolu ba kañ te ñun bëgg ni réew mi dañ cee bëgg jàmm loolu mënul nekk te fitna bi des ci kanam moo ëpp doole fuuf fitna bi ñu weesu te bés bu jot imaam yi xutba fii ni yenent bi dafa waxoon dabba ilaykum daa ul umami xablakum alxasadu wal baadaaw te mbokk yi bu ñu waxantee dëgg rek ñun sénégalais yi loolu noonu dal iñaan ak mbañeel bañ ku la deful dara iñaane ku la deful dara moo dugg ci kër yi di rogalaat dem ba ci këru diine yi dem ba ci tariixa yi nit ñi soxorante soxorante boo xam ni mbañante mbañeel goo xam ni indi jafe-jafe bi am ci àddina bi rawatina bi am suñu biir kon nag suñu bëggee yàlla may ñu jàmm li ma waxoon àjjuma rek yàlla ba mu jëlee baatu salaam jox ko sayiduna muhammad ñu koy waxante daan asalaamu aleykum bu ñu jullee bay génn ku nekk wax sa morom asalaamu aleykum kon yàlla may nañu jàmm ñun nag ñoo ci des yàlla nañu yàlla may dégg yàlla nañu yàlla may topp wa ma zalika ala allahi bi aziz di wax rek benn yóbbante boo xam ni suñu kilifa moo ñu ko yóbbante di imam abdou baaxee ñang nee na dafay maye fii doomam suba incha allahu ci waxtu tàkkusan mi ngi koy yëgal waa jumaa ji yëpp di ko yëgal imaam yëpp yal na yàlla barkeel asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.